1994 ba léegi commerce du Sénégal dara baaxu ci depuis bi ñu libéraliser commerce bi ba léegi dafa mel ni rek dañoo nekk ci jungle ci ci àll ku mën sa morom duma. depuis 1994 ba léegi amaguñu ministre du commerce bi nga xamante ne mën nañ ko joxoñ baaram ne am na leen lu mu apporté ci commerce bi walla sax mu valoriser commerçant. Sénégal dafa mel ni commerçant tekkiwu fi dara wax dëgg yàlla metti nañu te ñoo ngi koy naqarlu suñu ambition mooy nan lañuy def ba moderniser commerce bi nan nañuy def ba xoolaat ak ak yelleef yi nga xamante ne moom la ñu am nan nañuy def ba xoolaat service étatique yi ni ñu ñëwee ci ñun muy li jëm ci code du commerce muy li jëm ci code de l'hygiène yooyu yëpp war nañ ko càmbaraat loolu nag du mën a sotti lu dul état bi ñëw jàpp ci loxo